assalamu asalaamaaleykum mbokk taalibe assalamu asalaamaaleykum internetu Diawartoulah TV comme nañ leen ko waxone sank ñu ngi ñëw ak yeen tay wan leen euh, commission nan lañuy wajale waajalee bi la moy seen programme xamna duma yag ma yàgg damay bàyyi sama euh, soxna yu baax yi ñu ñu présenter wu rek wax la moy seen rôle ci commission bi bismillah. salaamaaleykum mbokk taalibe yi mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant man la soxna Amina euh, maay gérer berneelu commission tout tànk bi. di leen jaajëfal bu baax. soxna si présenté wu. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit mbokki taalibe yi di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci santam te sant bu baax macha allah ñun ñu ñu xamee ci yaay jëwriñ soxna Mama Bari ñoo yor jëwriñu bernde yi ñoo ñoo ñoo ñooy tënk lépp daal maanaam lépp loo xamante ne kii na ci saal bi ak lu jëpp lépp lu jëm ci turu tànk rek ñun ñoo koy tënk ak suñuy jëwriñ. waaw tey jii nii ci douzième édition cant Jawartulaa Paris euh, donc soxna si si commission tout tànk lañu bokk xam naa ñu laaj leen rek commission tout tànk tey jii nii euh, lan la ñuy waajal tey la mooy seen programme. waaw programme tout tànk moom maanaam ku ne xam na ko euh, programme bi mooy dañuy xëy ñëw indi tout tànk yi suñu indee tout tànk yi waajur yëpp ñëw ñu enregistré xale yi daal di wéyal liggéey bi. waaye ba avant liggéey bi di commencé dañuy enregistré xale yi jël seen numéro téléphone nga xamante ne tout tànk bu ci soxla sa waajur rek dañuy woo sa waajur nga ñëw euh, nga mën a dalal xale bi tatagal ko euh, après nga bàyyi ko fi ñun ñu wëyee liggéey bi yow nga delluwaat ci sa liggéey. waaw noonu noonu noonu baax na comme ni ngeen ko déggee moom. Euh, xale yi dañ leen di enregistré donc niveau sécurité moom macha allah euh, commission tout tank moom préparé na lépp xanaa ñu laaj leen rek comme euh, tey jii nii moom dafa am cant tout particulier boo xam ne cant mooy cant tout tank yi ñu laaj leen rek nan lay demee exactement ak yan xale à partir de quel âge la xale yooyu noonu mën a mën a ñëw si cant bi. Oui, à partir euh, euh, de am pour nous nourrisson côté de de 0 à presque on va dire euh, mois par mais par yi dañuy toxines seen wet ak yooyu wala am membres spéciaux pour Magui, c'est à partir de 4 ans jusqu'à 14 ans et du coup en général enfin la plupart ils sont autonomes et les autres nous dañuy pour animation bi et euh, pour tamit n'ak. man surtout man fuma bokk commission Bernard bi jox leen ñu euh, topoto xalé yépp ba ñu que mu bébé nourrisson yi euh, changer les seen tous les besoins en fait on essaye de répondre aux besoins de tous les enfants voilà waaw comme ni ko soxna si waxee moom euh, daanaka tuutànk yëpp mun nañ ñëw du tuutage bu ñëwee dinañ leen toppatoo ba mu baax ba mu baax bu ñëwee dinañ leen toppatoo ba mu baax waaw xanaa beneen laaj bi rek mooy euh, tant tuutànk yi am na commission tuutànk am na wante lu tax commission tuutànk important ci genre événement yi nii. waaw lan moo tax euh, commission tout tànk important ci genre genre événement yu mel nii ndax dañuy bëgg ñun di tënk tànk yi ba waajur yi di mën a jokk ci liggéey yi ñi nekk ci waañ wi dem ci waañ wi ci liggéey waañ wi ñi nekk ci durus bi teew lu maanaam xidma yëpp yoo xamante ni am na fi rek ci biir commission yi kenn ku nekk nga mën a liggéey liggéey bu mucc ayib ak xel mu dal ndax di nga xam ne yow sa njaboot fi nga ko dénkaane ah fi nga ko dénkaane kat ñoom dañ koy def comme seenu njabootu bopp sa xel dina dal waaw xam naa beneen laaj bi ñuy laaj tamit mooy euh, tey jii nii ci tant tu ci cant mooy tey jii nii ci cant tuutànk yi euh, yan activité la ñuy amal ak euh, yan tuutànk ñoo ci bokk ci activité yooyu noonu. activité euh, on va dire les nourrissons activité dormir c'est une activité pour à partir de 4 ans jusqu'à euh, je vais dire 14 ans du coup ñoom une activité am une animation boobu euh, sëñ Cheikh suñu jëwriñ bi koy yi dañ leen di histoire Serigne Touba leen livre par rapport à julli bi pour julli aussi livre il faut dire bismillah et alhamdulillah euh, donc manam dal je yi daal ci religion la ak ci mirum euh, yoonu mouridisme bi lepp dal ñong koy djema euh bëgg inculter euh, ko je veux dire voilà. waaw jërëjëf ah, soxna yi suñu la Euh, di ñaan euh, mbokku taalibe yi mbokku internetu Diawartoulah TV yi euh, ngeen abonné wu ci page te bu leen fàtte ab bës ci cloche bi boo leen bësee ci cloche bi incha allah benn vidéo du leen raw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax jërëjëf inni la qillu liman mahma amudda yadi law yajulli bil husna wa bi zaydi